man mënu koo fay Cheikh Samb ñu ngi koy bëggee bu baax a baax ndax jàpp na ci affaire yi quoi raam daan. sa digganteeg raam daan. waaw sa digganteeg raam daan ba mu fi jugee bu yàgg la. yàlla def ngeen doon ànd guddeeg bëccëg subaa ngoon mu doon sonn si yow tey yàlla def na nekkatu fi juge na fi booy fay yaa ngi fi ak njaboot ji yaa ngi fi ak équipe bi tey lan ngay wax ci sa diggante ak moom. non man bu may wax ci loolu sama xol day tooy parce que ñoom ñëpp ku ci nekk dafa am fu ñu jaar fu garaaw Moussa Balla bu may ñëw fii moo Garga 2 ñoo tax ndax Garga 2 ak Moussa Balla ak sama ñoo nekkoon ma ci école bi waaw Ramdan nekkoon kenn ci man maa moom ak Garga ñun ñëpp ci diini lañ doon nekk suba ba ngoon am na benn xeer bu nekk géej ñun ñett dañ faraan toog di waxtaan souvent maag Moussa Balla Gaye ñoo fay toog su may daw ci géej gi ba yem ci xeer bi damay sëgg lu yàgg parce que xeer boobu daf may fàttali quoi ni àdduna jarajaru fu lu ñaw bu kenn yéene kenn lenn na ñëpp yéenante jàmm Sénégal benn boobu la kenn mënu ko xar ñaar ñoo bokk ndey ñoo bokk baay lii nii mooy li may wax rek dëkkandoo mooy mooy loo gis ci àdduna te jii ma wootee gis naa su may dëkkandoo yëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp kontaan naa si ñoom bu baax a baax a baax a baax ñaanal ñi nga xam dañoo génn àddina ku mel a jëkkee Ramdaan la defee lépp yal na ko yàlla yërëm xaaral ko àjjana ak grand Moussa Dioum nga xam ne sama combat bi passé moo sonn ci man di ñaanal waa Parcelles ñëpp ko